dina xat pour ñu mën a wax ci ay Sonko Adji Sarr ay jugement waaye du xat pour ñu wax ci jàmm ci Sénégal parce que tey màggaluk tey gii rek gerefu transporteurs yi du ma ne laal na màggal gi waaye sonal na taalibe yi lool ndax génn fi nga nekk ñëw fii ci réew màggal gi lu jafe la te loolu ñun ak taalibe yi bokk nañ ko dundandoo kon loolu nga wax muy jëmmi procès Ousmane Sonko bu doon ci procès ak waxtaan rek ci politique ak waxtaan ci politique dama lay wax ne loolu xaju fi waaye bu fekkee waxtaan ko te jàmm rek jàmmi réew mi am dama lay wax ne loolu rek lañ war a waxtaanee parce que réew mi ñun dañ ko bokk jàmm rek moo mën a am màggal yi di am ngénte yi di am soirée yeeg. dansin yek fecc yek beure yek lepp ci kaw jamm la sax euh, mbirum Adji sar ak Ousmane songo na da fe jaaroon ba xagnon réew mi jàmm ba ñepp bokk ko yëgandoo ba réew mi eggoon ci situation bo xamne ne police mënu ko wona régler gendarmerie mënu ko wona régler armée mënu ko wona régler président Macky Sall miñ jox réew mi di ko regle régler lo sax dem na ba xamne ne mënatu régler ba mom, ay kilifa diine ñoo ñew ñaan. moom itam mu génn yë yëkkati ay kàddu yu ñaan ngir réew mi dal ngir réew mi dal kon suñu demee ba yàgg la kilifa diine ñaanoon ba réew mi dal ñu yëg ne loola dañ koy bëgg a yëngalaat li wolof naan picc mu ñuul kur picc mu ndëbin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw loolu rek moo ci am kon ku nekk moom ba ci président Macky Sall moomu sax tiit na. ndax xam ne amna ay fani fani fan yo xamne ne bëgg na dox soxla wala mu bëgg dox ay activité mënu ko ngir ci jëmmi procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr kon même mom bu ko jappaté xam ne waj na ko de waaye dana tit gendarme yek police yek ñep ba ci général Moussa Fall ak euh, ñom Antoine ak ñep fii ma tok ñii suma génné sama buntu kër bi kër gi may jakar lool magi Moussa Fall mo fi dëkk bu jigen kon ñun ñep ben famille lañ xamanté nañu ci suñu biir té kenn ku nekk nak man nga yéne jàmm man nga woté ay dé wayé boy aw ay accès di nga xamné li aw ay jigul kenn tay nak duma chroniqueur bu toog fajri duma chroniqueur bu ci senewep ci ay dem ben wayé dama nek kilifa diiné bu tok ci sama eut ya-, yendo jang alcorane mak samay talibé yendoo ñaanal waliyu yàlla kon yaakaar naa bu ñu ñaanee yàlla na ko def ñu ñaan ci yàlla jàmm jàmm ci réew mi waaye di ñaan président Macky Sall en tant que guide religieux mu delloowaat xelam ci jàmm parce que nag suñu waxantee dëgg tamit France rek bi ñu defee élection législative kenn amul majorité comme li dal Sénégal semaine matu ko dañoo daal woote dialogue Emmanuel Macron woote dialogue ñu bokk toog xool comme que kat réew mi kenn population bi ñooy fal te wóolootuñ kenn kenn ku nekk dañoo dagg aw morsa jox la ñun ñiñ jox morsa yi nan bokk toog waxtaane morsa yi ñi ñu ko jox nan la ñuy def ba seereel leen seen seen situation mais Sénégal bi fi loolu amee ba tey man gisaguma benn jéego boo xam ne président bi def ko dox pour jàmm am ci réew mi lolu nak am rew buñ la ko denké nga dem ba reuy pour dox wala nga rus pour dox jàmm lolu njit du doxé nonu kilifa du doxé nonu mang koy ñaan mu delo ci wat xéram xamné rew mi su amé jàmm lim bëgg ci la koy am bu amut jam timit ñun ñepp ñoy bokk ñak jàmm joj xeyna man xawma nu mu démé waye ëttu sëriñ ci mom euh bo ko xamné xaw nga sori. ci euh, ci ci ci ci ci maanaam dëkkoo ci biir dëkk bi miinoo ko xëy na amaana même bu dul Sonko sax gis sëriñ bi mën na laa jafe même bu dul sëñ euh, bu dul Ousmane Sonko gis sëñ Muntaxa ci boppam moo yombul rawatina soo fa amul euh, loxob ndeyjoor wala loxob càmmoñ xam naa loolu moom xëy na mën naa am ña ko def aj ko ci politique mën naa am sëriñ bi rek moo jafe waaye lu mën a am rek mooy Ousmane Sonko moom toll na ci réew mi moom foo xam ne. dañoo manam gis Serigne muntaha waratu ko jafe lolu mom fu mu mën rek ñi ngi ñaan koka buntu ba ko la tej buntu ba nako tiji ndax ko xamné euh dafa tollu ci ñi naan man na yurum rew ak mënu koo yor ki yalla tek ci bop dekk bi nga xamné moy mo bu bu bu dogalee ak mom koka ku bëgg gis dang ko wara gis rawati na nak ku melni Ousmane Sonko lolu mom mom yap na né nak da ray politique lalu lu ndax serigne muntaha mom politique politique lu waaye dafa yombul ndax day mag. tey responsabilité yi dafa bari. tey nag yàlla xam na ne bi ma xëyee ak léegi xooluma internet xooluma télé xooluma rajo waaye jàpp naa ne euh, man amul amul lu may euh, euh, bu dee aji saar dafa maa def plainte loolu ànd naa ci ak xel mu dal sëkk parce que yaakaar naa ne aji saar bokk naa ci nit ñu ëpp lu ñuy wax ci moom parce que moom dafa nekk actualité boo xamante ne dafa taw a jeex depuis deux ans. waaye yaakaar naa ni benn yoon boo xam ne yëkkati naa sama kàddu gi wax ko loo xam ne du dul noona la wala yàq ko tax maa jóg wala yooyu moom musul am te yaakaar naa bu amee mën nañ maa vaar ñun li ñuy def du ay aji saar du ay sonko du ay loolu ñun li ñuy def mooy dëgg Sénégal mi Sénégal lu doxal réew mi ci la ñu nekk. Euh, amuñu nag benn problème loolu yëguma ko yàlla xam na ko yëguma ko mais su suñu ko yëgee tamit amuñu ci benn problème parce que ñun ay citoyen Sénégal lañ. suñu ñu pelante ta yoon wolo ñu dinañ ko dem wuy bu ñu amé lu ñuy laaj dinañ ko tont waaw né euh, dal man sékuma ak Adji lu wara tax mu di porté pelante non nit nak bokay koy porté plainte da ngay wax né li la ma sosal dal man yaakaar ne musuma sosal ben nit musuma sosal kudul aji sar, sax duma ko sosal man ñimay saga sax duma len saga ñimay togn sax balna len man lima taxajuk defar la defar la waye du du du du du du affaireu ki. deng nga du affaire ay ay ay ay ay ay affaire aji sar musuma yëkkati sama làmmiñ sax di ñaan yàlla maanaam lu dul dal man li ma xam nga ñun wet gi ñu dal moy. euh Ousmane Sonko woowoon nañ ko mu nangoo dem te teewul fitna amon japp naa dugg ci di wo ak di di di di di dal daal maanaam yëpp dafa nek lo xam fitna lay indi te ange politique bi ci am tamit moy dañuy japp ne rek lépp moy téré ko mu dem 2024 nek candidat su fekkee ange bobu politique bobu daf ci dugg mom lépp lu politique dugg amul men réew mo xamante tak na te politique taluk wala ay ressources japp naa politik enjeu politique bobu nak kuy xép lolu da nga xamul li xew ci aduna bi waye lolu mën na jël réew mi def ko dom té nak réew mi loolu ñun ay kilifa lañ ñaanuñu yalla loolu wala parce que ñun politiguñ man aduna du yag ba nga dégg ñu né ma jité réew mi wala ma nga ci assemblée ba wala ma nga ci mairie man faluuma faluuma aw may parti aw may mouvement aw ma sax groupe whatsapp ko lu si interpellé Sonko défendre défendre ruma Sonko man dëgg lay défendre dëgg googu may défendre bu doon ci yow la nekk tay ma anda ak yow tay défendre ruma Ousmane Sonko défendre ruma kenn tay yaangi yang nii sama kër li fi nek ci ay talibé parti yépp ñu ngi ci biir man ay junni junni talibé ñoma yaakar yaakaar ëpp di top ci Ousmane Sonko di défendre wala may top ci kenen di défendre waye nak défendre deug su féké Ousmane Sonko ci la deug gi nek dina ko défendre parce que damay défendre deug soog mom mesure yi état bi jël dafa am yo xamné ne parce que auto tubaab ba ko défar défaral ko ay lampe pour muy daw goudi suñu démé ba fi ci Sénégal ñu né auto du fi daw goudi kon dañu warona def ben mesure. mooy biis bu la romb ñu ñu ñu ñu daal di jël lamp yi daaj dindi lamp yi wekki lamp yi biis su ko defee kon ñu biis yi duñ mën a daw guddi la fait que rek oto yëpp di am lamp moo lay wax ne oto day daw guddi benn oto nag mënta mënta mënta mënta accidenté ca 23 ca 3 heures du matin ca xo ca Kaffrine nga jël mboolem oto yëpp bëgg leen a boole sanctionné loolu dafa am lu ci waroon a jàngate rek dindi ko mesures yi nag man bañu ma yëpp. am na ci yoo xam ne dañ ko war a def muy ay visite technique yeeg yooyu yëpp dañ a def mais 23 heures fu mu fekk ab oto ñu gaare ko man sama taalibe yi barki démb bi ñuy ñëw ziar bi daanaka xaw nañ leen a fanaanloo ci tali dañoo mujj wàcc jël ay oto yu ndaw fayaat ñaar fukki junni doog a ñëw chauffeur ba noonu lañ ko fanaanale ci kaw tali ba te boobu 23 heures rek moo jot chauffeur boo xam ne tey jii mën ngaa déparé fii na Dakar nga jëm yàlla dogal 23 heures jot da ngay xamoo fooy fanaan ci àll bi tey loolu dafa nekk ay insécurité ak chauffeur bu départ léegi jëm Ndakaaru mu wóor ko ne bu 23h jotee dootu daw kooku mën naa daw xel woo xam ne dana ko accidenté loo donc heure bi moom loolu dañ ko war a dindi immédiatement bu ñu dindee heure bi nag man leneen li ci des lépp am na lu ma d'accord ak état am na lu ma d'accord ak chauffeur si waaw xam naa daal loolu laa ci am xalaat accident yi nag ñu ñaan yàlla parce que affaire u ñaan tamit bokk na ci.